صل على خير رسول يا من به يحبوب يسول بالآل وسام بالهدول ولتتقابل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا سن والمي صل على خير النبي هذا الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلمي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 مالك يوم الدين اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الله سمع الله الله الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكن بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ورحمة الله وبركاته نولين دي نوي زيارة الساكو سيني الساكو تساكو سيني جيجل ينك مبوك جلد يب غنا بين جيجل ويالا عز وجل تفكي فانو تدي تنطلو تجيخي تلي ما من أيامين ahabu ila allahi an yutaabada lahu fiha min ashri dhil hijja mu rawati nag bisu tey jii waaye ci yépp lan war di gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla di ci gën a def ay ndigalam di ci gën a daw ay tereem ndax lu baax lu ne ci bis bi tedd yi lay gënee lu yées lu itam ci lay gën a yéese nga fonk bis bi dundal ko ci juróomi faratee julli waaye dundal ko it ci sunna si ko xame sunnata abil ambiyaay ibrahima alayhi te def ko def it mi nga xam ne ci lay mate ndax yàlla nangul nu ko ani sayidati aishata ummi almuminina radiallahu anha anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qaal ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا خمنا حديث بينا dundal bis bi ci sunna siñ ko xamé dara gënu ko ci bis bi gannaaw li ñepp xam di julli juróom yi nu di ci ndokkel ñepp di ñaan yalla mo nangul nako té délo ci ko ak ñun ay ati at yu ni fekk ci jamm ak tal di ci bereel ziyara ak ñaan suñu kilifa gi Cheikh Sidi Muxtaar al xalifatil am li tariqa al muridiyya yàlla na ko yàlla sàmm te dëgëral ko wéral ko ci yaramam waaye ci xelam itam te yàggal ko fi li may jot ci turam nag dafa aju rek ci waru garam yu ko yàlla gàll bi mu ko defee muy kenn ci kilifa yi lislaam yi ci réew mi def ko it mu wóotu sëriñ mag bi ci njaboot ak ci yoonam bi ak ci dëkkam bi dafa seetlu ne ay at a ñi ëpp ëpp ci julliti réew mi ñooy woorandoo di wareendoo di tëbaskeendoo ak gàmmoondoo te ñooñu ñooy ñi topp waroom xam-xam yi wax ne ñi bokk gox ñooy bokk mbirum weer di gis-gisu Ibnu Abbas nee na sax loolu la leen yonent bi digaloon ba muy tontu Kurayb hadiis bi guddul Kurayb dafa ne dama ñëw saam fi ñu wax tey Syria koor bi teru fekk ma saam ma gis weer wi guddik ajjuma gannaaw bi ma dikk Madina ci mujjug weer wi Ibnu Abbas dama laaj ba ci yàgg mu tudd weer wi ne ma kañ ngeen gis weer wi ma ne ko gis nan ko guddik ajjuma mu daal di yow ci sa bopp gis nga ko ma ne ko waaw nit ñi it gis ko woor Muawiya woor mu daldi di ne waaye ñun guddi gaawu lan ko gis te duñ dañ di woor ba matal fanweer wala mu gis ko mawax ko ne ko danga dul doyloo kon wala dan dul doyloo kon gisul Muawiya ak wooram mu ne déet nii lañu ko yonente bu yàlla ba digle woon lu yonente bi digle woon nag mooy ci noonu ko Ibn Abbas defoon am naa yaakaar ne dara gënu ko wóor ci jullit am lu ci amit loo xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel te moo di ne saam gi koray bu jugee ak xijaas gi mu fekk ibnu abbas jege wu ñoo soree ni fii soree ak màkka ku jige saam lu néew lay jegi ci iraq wala jordan ci wàllu saalum egg xijaas dëgg la booba dem beeg dikk bi gaawuloon ni mu gaawee waaye noonu lañ jege mel na rekk ku jige fii jéggi Guinée Conakry dem Sierra Leone wala Liberia wala Ivory Coast saaxilul aaj lépp ci réew kon ci ndigal loolu boroom xam-xam yooyu tënku ci lañ tënku waaye teewul am na ci waa réew mi ñu topp boroom xam-xam yoo xam weer feeñee ci àddina si rek ñëpp ci war a sukkandiku loolu it dëppoog addis bi wax ne dee leen woor ci gis ko tey yi ci gis ko nga xam ne tënkul gis gi ci nu gisal ko suñu bopp tënk ko it ci am ñu ko gis ci béréb bi ne na gis am rek ak fuñ ko mën a gis kon yi itam li ñuy def am nañ fuñ ko teg bu kenn jàpp na rekk dañoo bëgg wuute di def li leen neex wii doxalin nag ci ay kuréel lan ko miin waaye jëmmi réew yi ñoom ni Sénégal di doxale di sukkandiku ci gisu boppam lees ci miin te tegtal bi moo di ne saabu koor dikkee wala kori wala tëbësti am réew yu jàpp bis am yeneen jàpp bis ba ca topp li ñuy faral di dégg te man ko top tola modi di wer wer saxna na ci rew sangam ak rew sangam ak rew sangam way rew sangam ak rew sangam gis di dañuy matal wer ñom mom lañ wax bari na lu senegal ak Maghrib ak Oman ak Iran di daje ci lool muy matal wer tabas gi nak ñom daje wuñ ci ak ñun ñu ñoom démb lañ julli ndax weer wi mën naa leer fa ñoom ba noppi la fi ñun waaye mosuma dégg ñu ne réew sàngam ak réew sàngam gisuñu weer wi waaye nee nañ gannaaw réew sàngam gis na ko rek loolu doy nga xam ne kon daje gi ci benn bis teewul réew mu ci nekk gisu boppam wala ñàkk gisu boppam ci la sukkandiku gannaaw wote gi gute tege ci xam-xam la gudul yàq dara sëriñ bi dafa bëgg nu bañ ko jox dayoo bu mu yelloowul eggale ko fu mu eggul di ci werantee ka xuloo ba muy jur taqali ko tey ñaan rek yàlla nangul ñépp te def ko muy soree waaye léeg-léeg du mën a ñàkk ndax noonu la mu yàlla binde wala yazaaluuna muxtalifiina illa man rahima rabbuka wa li dalika xalaqahum في خلاريا من تجتي خم خم كنا ور ورما الخلاط مرما جبنا منا أم كت مدم بجسنا مرما مو برجب خلاط ولا مدم بجسنا مو تبقى مو جب تخلاطم دفن إمام الشافعي من أول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب wa ra'yu gayri xata'un yaxtamilu sawaab feek looloo ngi am jàmmoo di am te kenn du yëg ci xalaatam ku dem ba gis ne moroomam moo gën a xalaat man koo fekk gannaaw loolu sëriñ bi nee na li ko war ci yoonu sëriñ Tuubaa bi ak njabootam bi ak dëkkam bi mooy leeral ak taxawu ak sàmm ci biir loolu nag lay fàttale ne yoonam wi du lenn lu dul lislaam jum yeesal teg ko ci alquranul karim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam banaytu taatiya bittibaai lildikri wa sunnati wal ijmaai njabootam gi te ñooy ñi ko def seeni roykaay ñépp li sëriñ bi bëgg ci ñoom rekk la bëgg ci moom ñoom moom seen siir muxtaar mii te loolu weesul ñu doon ay jullit yu wéetal seen boroom di ko topp tey rafetal topp gi ak rafetal seeni diggante ak seeni moroom jaam yi te lépp tege ci alquranul karim ak sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nee na nos bi kilifa yi yoon wi nos yoon bi maam ay njiit ami jëwriñ nos boobu mooy yombal li sëriñ bi bëgg ci njaboot gi kon ku nekk ci nun war naa taxaw taxawaay bi ko war ci biir nos boo bii bu waree digle digle bu waree topp toppee dimbale ku mën a dimbale taxaw ku taxawu jubbanti ku war a jubbanti dëkkam bi it di Tuuba sëriñ bi nee na ci daa wax rek la ci waxaat te mooy warmaal giñ ko war a warmaal ak moytu giñ fi war a moytu lépp lu wuteeg li fi borom bëggoon te loolu war naa yomb ndaxte bu sëriñ tuuba doonu toon kim doon it eh, jëlale naa jël jëlale naa diine ak waaye ngor ak yiwe daa war a tax ku borom kër baaxe ba yaatal ko ci këram mu bañ a wor te bëggal ko fa lam bëgg bañal ko fa lam nee ñi bëgg a sax ci def ci dëkk bi lees fi bañ te mel ne amuñu ci lu ñuy rus amuñu ci lu ñuy ragal nee na ñooñi nañu xam ne deesu leen ci bàyyi du ci saahir du ci baatin mi ngi ñaan yàlla mottali nawet bi defal ñu ci xéewal bu kawe suñ jort waaye mi ngi nuy fàttali it bu mbay mi sottee ku ci asaka war mu génne ko te bañ a yàq mi ngi ñaan ujaaj yi delsi ci jàmm te yàlla nangul leen ñoo seen mbokk yañ fay fekk ñoom it nañ ñaanal réew mi ak réew jullit yépp wa aghrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abada wa rahma wa awlina ya rabbana husna al xitam inda al mamati wa hadal yawm al qiyam babi bala يوم ألست أولا قبل سوي تكلمي صل على خير رسول يا من به يحبو بسول بالآل وسام بالهدول ولتتقابل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا سن وعلمي صل على خير النبي